lan nga gisee impatience bi bi bi am euh, quand certains parlent du pouvoir parfois da ngay fàtte ne le deux lañu fi ñëw. Mm-hmm. Euh, lan moo waral impati impatience bi mu mel ni dañ leen di xaar ci lépp et puis euh, les les gens attende de des des des réponses même jeunes yi tàmbali nañu. di di di di parce que li leen discours bi président Sonko doon tenir la li leen gëm loola dañu yaakaaroon bi daal baguette magique dañoo def nii non non man gëm naa ne ñoo am nañ vision am nañ programme parce que loolu leen propose sénégalais yi mais na leen may temps na leen may diir instant yi foog ñu xam dèjà ñoom lan lan la ñu jël comme ndono foog ñu xool dossiers xool yu bari bari mënuñu xëy rek lépp gëm naa ne bu ñu leen mayee temps ñoom war nañu mën def dara grand Sénégal parce que li ñu proposé sénégalais yi ba sénégalais yi fal leen je pense ñoom si feu boobu la nekk la ñuy continuer donc. jéego yi ñu tegagum dal na sa. dal dal na xel parce que li ñu hmm. def déjà si si gouvernement bi daal nombre bi ñu ko wàññi nii baax na. di fa nekkoon si ay si ay si ay si budget bu ñu doon yokkulee dañ koy jël économiser bu ko feneen donc yu bari yu ñu nekk di commencé déroulé baax na mais nañ leen may temps c'est que bu ñu leen bu ñu leen bu ñu yàkkamtee rek dañ leen di teel a jéppi fekk ñoom ñu ngi jéem lu ñu mën pour dimbale Sénégalais yi pour man am na temps de borom leen war a may bàyyi leen ñoom ñu xool dossiers xool fu ñuy jaar fu ñuy def ba wàññi ceeb bi wàññi diwlin bi wàññi denrée les denrées de première nécessité courant bi je pense je sais que ñoom ñu ngi si di waxtaan waaw tooguñu rek jàpp seen njàmbur mais lo bu ñu leen mënul temps yooyu yëpp yooyu du mën sotti. mais mais mais yeneen jéego yi jëm ci euh, rapport yi ñu commencé génne. Mhm. di ne bon ce sont des rapports. Euh, déjà déjà publié. Mhm. Euh, li ci desoon mooy peut-être saisir les les, les juridictions Euh, compétente pour ñu def euh, seen liggéey. Mhm. Euh, mooy concernant les rapports de l'OFNAC. Mhm. Bassirou Diomaye Faye le 31 décembre dafa ne nañu publier rapport yëpp et puis mhm. ñu jël rapport yi en charge. bon am na ñu ko jàppee diversion. Ousmane Sonko tamit mu ngi tàmbali di teg ay jéego di def l'audit de l'administration de la gestion du parc logistique. Euh, il a intimé l'ordre aux anciens ministres euh, de de de de rendre les les les les les véhicules. Mhm. Euh, jéego yooyu yëpp yéen da ngeen leen da ngeen leen ci accompagner ce sont des choses à faire. non loolu baax na par rapport ak rapport d'audit yi pour man c'est une très bonne chose mais duma ko apprécier ko. lu damay bàyyi fii ak trois ans ba auditer leen ñoom ba rapport yooyu ni ñuy def. non j'ai j'ai pas compris xam nga fi mu toll nii. Mhm. toog nañu indi une nouvelle démarche ne dañuy auditer dañuy génne rapport publier ko. publier ko ba pare euh, tiire toutes les conséquences voilà maintenant loolu baax na mais damay ñaan mu continuer laa may apprécier nag dëggantaan bàyyi fii trois ans buy auditer ñoom seen i ministère ak seen ak seen direction ma xool lu ñuy def ak rapport yooyu. ah d' accord ñoom à leur tour. voilà ban posture la ñuy am ak. ak rapport yi nga xam ne moom mooy apprécier seen. seen seen gestion. mais fi mu toll nii idée bi baax na démarche bi rafetlu naa ko mais baa may apprécier xaar ñoom ñu ngi def ak seen rapport parce que rapport jàmbur la ñuy génnee.